ah sëñ Cheikh sama doom bàyyi mais sa sant bi dafa mel sax ni moo dàq sama sant ndax yow yaa fi représenté maam Cheikh Ibrahima Fall babu mu ngi maa ngi lay ziar bu baax a baax ci turu son excellence le président de la République Macky Sall nga may ma rek sëriñ bi ma nuyu ngeen mayaat ma ma commencé ci jigéen ñi soxna Soda Xuma maa ngi lay ziar di la nuyu yow ak mbootaay bi ngeen li yépp te muy mbootaayu Parcelles Assainies samay soxna bokk ci ma bokk ci ah. Dakar yépp bokk ci d'ailleurs sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mbiram dafa weesu famille dafa weesu ab dëkk dafa weesu am réew Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul ni ko tubaab yi di waxee c'est un international sur la voie de Dieu subhanahu wa moo tax bés bii fàttaliku julli géej ku ne rek rawatina sénégalais war na tax tey buñ koy fàttaliku foo mën a nekk nga dugal ci sa loxo sa cër sa làmmiñ walla sa jëmm moo tax Cheikh Bi Makhtar vous n'êtes pas seul vous êtes à la tête de cette grande commission chargée de l'organisation derrière la grande dame Sokhna Soda mais sous le ndigal de sëñ Muntaha Mbàkke xalif général des des Mourides yal na fi yàgg te wér faal yaaru mu lay ziyaara bu baax wax ci sa maam jafe na jafewul ndax ki nga xam ne liggéey ak jëf lañ lay mandargaal ci yoonu murid mais du wax ju bari moo tax waxtaan ci maam Cheikh Ibrahima Fall lu yomb la mais na fekk nit ki dëggu ca xolam d'abord ensuite ci jëmam et ensuite ci jëfam moo tax bésu tey bii bésu fàttaliku la fàttaliku loo xam ne yàlla suñu borom tabaaraka wa taala ci li ñu fekkee ak li ñu wax ak li ñu nettali ci alquraanu karim ba ci leneen li ah suñu yaakaar tey ak ëllëg gannaaw yàlla mooy Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul julli ci géej gii histoire ju ne wax nañ ko wante c'est la première et c'est la moo tax buñ koy waxtaane jullit yépp ñoo war a am mbégte suñu borom tabaaraka wa taala moom moom yëfam tànn kenn ci askan wi adduna yëpp Muhammad sallallahu wa sallam ne ko innaka laa laa xuluqin azim tànn ko def ko muy roy waay Ahmad Bamba Xaadim Rasool ne moom mooy Xaadim Rasool Moustapha xayru xalqillah kooku bésam bii bésu ñépp la moo tax son excellence le président de la république nga xam ne yàlla mi nga xam ne moo wax ci alxuraanu karim moom mooy joxe nguur moom mooy ko teg ko ci loxoom ñaari yoon ci lu àndul ak benn lëj-lëj sénégalais yi am ci moom confiance kooku xamal na boppam ne réew mi balaa ngay ne naan ne fa liñ fi fekk mooy ngor gi ak diine bi diine bi moo tax lu mu ci mën mu ngi koy def ucciti kenn kii kii nii la mel kee la mel mais xàmmee na Ila Touba wane na ne Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul c'est un référentiel international ba tax na le président de la République son excellence Macky Sall euh, suba incha allah délégation officielle bi dana ñëw ndax man mii taalibe laa rek wax dëgg yàlla ci comité d'organisation bi la ma laa bokk te xam ngeen ne bu ma déggee seen zikrullah euh, turu suñ borom boobu nga xam ne ci ismaullah husna les quatre-vingt-dix-neuf noms de Dieu ah buñ koy tudd te moom la suñu maam maam Cheikh Ibrahima Fall jël yëkkati ko di ko saabal yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour tudd zikra bi gën a kawe allahu akbar laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Fall Asdiaye ànd ak Sëriñ Assane Fall Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne euh, YouTube Tawfekh Production et euh, de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale.